مفتاح الظلام والمفتاح الكفر ختم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم بقي نيجي لين دوني واد بو زياره في تي سين شين بي ني تودي تي في تي سين الكفايه الر... كفايه الراغبين بو شيخ مالك نيجي لين دي زياره دي جيتال تي نويو منصور مبي di ko ñaanal yàlla yàlla yeggale ay mébatam yàlla defal ko lu kawe njortam ci liggéey bu rëy bii nga xam ne mu ngi koy defal diine ji di ko defal tariqa bi waaye itam di nuyu Chérif Cheikh Ahmed Tijani yi mi ñuy àndal ci liggéey bi di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko lu kawe njortam ci yëngu yëngoom yeeg liggéeyam yi yàlla defal ko ci ndam coono liggéey bi yëpp yàlla def ko coono jaamu yàlla mbokk yi ñi ñi ngi woon ci kifaayatu raaxibiin ragal naa war nañu dugg suñu fukkeelu émission ak ñaar ñi ngi toll woon ci inshiraaxu sadr mooy nit ki dem ba yàlla may ko mu am xol bu ubbeeku ci lislaam ñu naan diw léegi maftu ali la diw léegi am na fatxu Seexul Xaaji Maalik doon ci joxe ay misaal ak i référence pour gindi nit ñi ba ñu bañ a jaawale cërub àddina ak cëru yàlla donte nit mën na am cëru àddina nit mën na am cëru yàlla laawaale cëru àddina loolu ñu bàyyi ko xel waaye itam mu leeral lan mooy fondement yi nga xam ne ku ci sukkandiku doo waru ci yaakaar ni lii ciiru yàlla la lépp daf ko delloo ci wàllu jaamu yàlla lépp daf ko delloo ci wàllu euh, jublu alaxira lépp daf ko delloo ci wàllu dëddu àddina doonte xam ne ne nit mën na am yàlla te terewul mbooloog ala la nga ko topp waaye foofu dafa bari risque trop te ñi ciy waru dafa bare moo tax daanaka traité wul aspect boobu donte weddiwul ne nitu yàlla mën na am mbooloo mu ñëwaat ci bi yonent di joxe misaal ci kiñ ne yàlla ubbi na dënnam ci lislaam mu joxe misaal fabu gi muy fabu jëm ci yàlla qaala al imaamu al busayri cheikh mohamad al busayri nisbatan إلى بصيرة بضم الموحد وسكون muwaxadi وكسر الصاد المهملة وسكون تحتها وبالراء بلدة بسعيد مصر مي مثال رك دي جيما ديفينير lan moo waral baatu Mouhamadul Busayri ndax li mu cosaanoo ca Misra benn dëkk la ci yooyu la doon misaal lan la Mouhamadul Busayri wax loolu moo am solo Mouhamadul Busayri dane wa ida xallatil hidayatu qalban nashitat fi l ibadati l aadaau te loolu mooy li yàlla wax loolu mooy li yonent bi wax loolu mooy li Cheikhul Xaaj Malik wax Mouhamadul Busayri dafa wax ni heure bu njubu yàlla wàccee ci xolub jaam te njubu yàlla googu mooy leeru yàlla njub leer la mu ne heure bu yàlla jëlee ak njubam sànni ci biiru xolu jaam bi li ngay njëkk ràññee ci jaam bi mooy nachitat fi l ibadati l aadaau cër yi dañuy sawar ci jaamu yàlla ndax leer gi ni ci biiru xolu jaam boobu te moo di leeru njub mooy motiver mooy pousser mooy soñaxal cër yi que dañuy jaamu yàlla te li ñuy jaamu lu nu def xeeb ko waaw kon nit ki fabu gi mu fabu jëm ci yàlla nin ko jundee sunu émission bële passé cawarte gi muy am jëm ci yàlla cofeel gi muy am jëm ci yàlla bëgg gi muy bëgg di dem ci yàlla te cër yi noonu ñu ci sawaree bu njëkk amu ko woon mu ne loolu ci màndarga yi wane ne diw yàlla def na ci xolam bi leer loolu ci la bokk mooy wa ida xallatil hidaayatu hidaayatu qalban nashitat fi ibadati l adaa kon loolu li muy wane mooy bis boo demee ba say cër tayal ci jaamu yàlla sab xol di lox di liw tayal ci jaamu yàlla jógal na bëreet waajalaat sa bopp ci wàllu yàlla xamal ne sa leer a ngi fay dawal nga dabu ji dawal nga gatandu dawal nga gaaw rattrapé yi la rëcc ci sa wàllu yàlla loolu boo ca génne àddina rekk du baax kon mu ne faida su ila taw ay attaawadiyu an masaili tadharu min aljawaabi fa bima nassahu wa masalatu man la cheyqa lahu fa cheytaanu cheyquhu waaw a cheikh ibnu mubarak yunkiru wa yuchanniu ala alqaili biha Cheikh Alxaaj Malik nee na laaj nañu ataa mu ne laaj nañ ko ci masala masala bii boroom xam yi daan wax ne man laa cheyqa lahu fa cheytaanu mu ne ku amul sëriñ cheytaane mooy sa sëriñ waaw loolu dëgg la loolu dëgg la parce que jëmmi am sëriñ seytaane mën na laa pousser ba doo amub sëriñ ndax lan la la seytaane di puus daf lay won ne ken kenn ëpp la xam-xam wala am nga xam-xam bu la mën gindi ken gënu la juddu ken gënu la bah ken gënu la jikko ken rawu la ci gox bi kon lu ngay topp kenn kooku seytaane dana ko inspiri nit su ko defee yow nga jàpp ne sa ñàkk wut sëriñ doyloo yàlla la fekk au fond sax seytaane mën na laa nax ba nga jàpp ci sa xol ak rëy ba tax nga defe ne waroo topp kenn loolu erreur bu rëy rëy rëy rëy tekkiwul ne par la force na ñépp wuti sëriñ ab sëriñ dalay doy bu la doyul doo ko wut kon ku dem ba gis ku la doy ci sa wàllu yàlla ak rëy bu mu la jàpp ba nga ne man duma topp nit waaw man moom man moom du topp nit man moom yàlla ak yonent bi rek waaw yàlla ak yonent bi rek mais dangay ut bunt bunt boobu mooy xanaa ñàkkul ci sa jamono boroom xam-xam boo xam ne yow yaakaar nga ne kii moo la ëpp xam-xam wala yaakaar nga ne kii moo la gën jikko nangul gi ngay nangul boroom xam-xam bi nga bokkal jamono mu ëpp la jikko ju rafet mu ëpp la xam-xam nangu gi nga koy nangu loolu day firndeel sa nangu dogalu yàlla ak firndel sa nangu bu yenenti ñëwaatoon ngeen fekkante jamono di ko top lolu foog nu bayiko xel mais ñak wut serigne tamit ak rëy mën nako jur parce que da nga japp ne yow waro top kenn kon lolu amne risk risque lolu ñu bayyi ci xel su am serigne ak rëy lalu ko dara lalu ko lu da nga gisagul ko la convaincre koy amul ben problème topal téré bi rek ba yalla dila won ak njub waaw waaye wax ne amul nag beneen affaire la mu ne bi ñu ko laajee cëriñ bi mu ne moo ne loolu da daan dégg ibnu mubaarak nitu yàlla bu mag la nag yunkiruha wa yushanniu ala alqaili biha ne na ibnu mubaarak daal da daan weddi wax boobu moom mësu ko d'accord naan man laa cheikha lahu fa cheytaanu cheikhuhu maanaam ku amul sëriñ saytaane sa sëriñ euh, ibnu mubaarak moom daawul nangu baat boobu ba pare da daan bañ sax ñu koy wax maanaam daawu leen xaw a boole ci dara parce que jàpp ne na loolu ñuy wax du lu taxaw kon loolu lim ci bëggoon a jublu rek mooy ñu bañ a forcer nit ñi par la force da ngay wut sëriñ wala déet wala azkaaru annasriya ak euh, azkaar yi nga xam ne daan nañ ko ci boole di ko dimbandikoo ci suñu wàllu yàlla ak yeneen i azkaar wa gayruha mimma yulaqinuhu mashaayiqul waqti la baasa biha mu ne ak yeneen azkaar yi nga xam ne sunu sëriñ si dañ ñu koy faral di saa di la jox wird mu ne ci tarixa bi xam nga loolu dañuy joxe wird di la sa ay wird mu ne ak yooyu yëpp dañ daan lii waaye Cheikhul Hadj Malick ne déedéet loolu moom laabaasan ali xëy na mën na dénoncer ñi nga xam ne jàpp nañ ne ku àndul ak ñoom nekkoo ci dara loolu moom c'est une erreur grave quant à weddi ay joxe zikkar nag xaaj maa Malick na loolu moom wax dëgg yàlla ëpp na parce que loolu dara nekku ci parce que suñu borom moo tagg euh, ci suratu euh, ahzab su ma juumul suratu azab wa dakirina allaha kathira yàlla tagg na ñi nga xam ne dañuy zikkar lu bare bare bare bare xam nga ne kathiran lu bari ci yàlla yàlla lu mu ne lu bari loolu mooy amul fu mu yem ci ñun waaw Cheikh Hadj Malick comme yàlla tagg na ñooñu nag wax dëgg yàlla loolu moom ku ko bëgg a weddi mbaa nga di ko doyadal yow yaay mujj doyadi wa man taraka al muddatan suma hadahu allah fa in fi fima qaruba falyaqdihi ci xaj maanaam am na borom xam-xam yo xam ne nee sax kep ko xamne dan daan nga def ay dog wird daan wird daan wird daan wird nga dem ba ben jëmi jamono rek nga bayyi mu ne nga dem ba yàgg yàlla mayaat la juk nga dem ba gis ne def erreur ki bayyi gi ma bayyi won wird yi mu ne nee sax nga fayaat wird yoy nga bayyi won nga fayaat ko mu ne ndax importance u zikar yegg na foofu ak njëriñ ya kon loolu ëpp naa bàyyi te loolu nee na aaya alquran a ngi nii mën na ko firndeel wa huwa alladi jaala allayla wa nahaara xilfatan liman arada an yadakkara aw arada shukura sunu borom wax na ci alquran suratu furqaan la suma juumul mooy buur bi nga xam ne moo nu defal guddeeg bëccëg moo nu defal guddeeg bëccëg ñuy wuutu wante su bëccëg deewee guddi ñëw wuutu su guddi deewee bëccëg ñëw wuutu kuy dem rekk sa moroom dikk wuutu la bii di lëndëm bii di leer bii di am coow bii di dal bii di tàng bii di sedd mu ne waaye lii li tax ñu def ko dara mooy képp koo xam ne bëgg nga wéttali ko yàlla ak bëgg di sant buur bi ci foo mën a toll ñu defal la ñaari xaal yi nga xam ne bu la bëccëg rëccee nga dabu ci guddi bu la guddi gi rëccee nga dabu ci bëccëg loolu la mais bu ñu bëccëg rek am bu jant bi soowee jeex na problème day am bu ñu ne guddi gi rek am bu guddi jeexee jeex na problème am yàlla nee na ma defal leen ñaareem nga xam ne bu la bii rëccee nga dabu ci bii lu la rëccoon ci bëccëg mën koo fay ci guddi lu la rëccoon ci guddi mën nga koo fay ci bëccëg loolu ak jàppandal la goo xam ne képp ku jëm ci yàlla dalay wan ne zikkar dafa am solo lool lool lool ba jéggi te mbooleem góor yàlla yépp mën nañu wax ne ci lañu euh, rawee mooy addikru wal fikru di nangu di wéttali ko yàlla ci sa xel te mooy euh, di ko jéem a fuglu fuglu ba pare di ko zikar saw làmmiñ di ko tudd sa xol di ko tudd ndax ñaari zikar yooyu am zikaree làmmiñ ak zikaree sa xol léegi-léeg nag ñaar yépp ànd waaye léegi-léeg mu xaw a jafe léegi-léeg ngay zikar sa làmmiñ te fekk xol bi teewluwul waaye teewlu gi nag di zikkër di ko teewlu moo gën a gaaw a joxe résultat ci xol léeg-léeg sax nga dem ba yàgg nga teg nee kurus gi teg làmmiñ wi déglu yàlla loolu mooy fikru zikru bi mooy bi ngay zikkar benn ci sa làmmiñ ak ci sa xol ngay teewlu fikru bi nag mooy nga jékki saay bàyyi ñaar yëpp na teg di xalaat ci ayatullah yaa ngi ci géej gi yaa ngi ci jant bi yaa ngi ci weer wi yaa ngi ci asamaan bi yàlla yi yaa ngi ci sa bopp yaa ngi ci sa biir yaa ngi ci kéemaani yàlla bindee ci yow kooku da nga koy def ba absenté complète daanaka dama ragal ne sax moo gën a gaaw zikkar bi ngay def pour nga am yàlla waaye loolu foog nga xaw a am benn mémoire bu baax bu mën a capter bu mën a téye di la cadrer nga rester pour euh, jéem a dox ci sa wàllu yàlla loolu tamit nga góor góorlu ci say jaamu yàlla yu bari dana la dimbali ba boo buggee jël élan boobu rek mu xaw a yomb ci yow yooyu nag mooy yi nga xam ne mooy wéttale jaam bi ba du xaru lu àddina métti métti am na ruq yoo xam ne boo fa duggee rek da ngay fàtte àddina loolu lu góor yàlla di jëriñ taalibeem li muy def ci moom bis bu demoon ba àddina xat wallahi day sukk ci barab rek fàtte problème yépp loolu nag lu ko ëpp sole ci àddina gisuma ko ndax mooy aljanay àddina mu ne ibnul qayim al jawzi fi kitaabi إخاثة اللهفان من مصائد شيطان ما حاصله ابن القيم الجوزي دني إن من كيد الشيطان ما ألقاه على جهال المتصوفة وهو يخيل إليهم أن من وراء الحلم طريقا لتربية النفوس وتهذيبها وتصفيتها إن إن سلكوه فتحوا وكشفوا كشف العيان فإذا انقاضوا وانخضعوا لكيده عن التقيد بالكتاب والسنة وما عليه الصلف واو ابن القيم الجوسي نانا دا فا بوكي تي بيخي شيطان دي ديف موي مو فخي با ساني تي خولو غايو ريري mu sànni ci seen xel nga xam ne ñooñu ay mutasawif lañ leen di wax ñoom dañuy jéem a mbubboo tasawuf di jéem a doon doon lu ay suuf yi te fekk sax matuluñ jikko ja xam-xam baak jëf ja nee na muy sànni ci seen xel ñuy xayaal ne am na ci ginnaaw xam-xam maanaam nga jël xam-xam génne teg na le jël sharia teg na le tarbiya nit ki ba mu sell ci wàllu yàlla te doo sukkandiku ci sharia doo sukkandiku ci xam-xam mu ne loolu amul loolu seytaane koy def kenn mënul tarbiya nit te doo ko jaarale ci xam-xam ak ci sharia bu set wicc ñu tarbiya ci bakkanu doomu aadama ba mu sell waaye seppi xam-xam teg seppi sharia teg da ngay tarbiya nit ku sóob ko boo ko sóobee dafay am fatxu mais ak condition ko du xool sharia du xool xam-xam du xool dara nay fallaxe rek loo ko def loo mu def ko foo ko dugal mu dugg fa loo ko wax loo mu wax ko nee na su boobaa nga ne da nga koy defal fu boo xam ne day gis lépp mu ne loolu nag ñu bëri dañ cee woru dañ cee waru mu ne bu dee wommatu nañ daal jëm fii mooy waru nañ ci pexe yi nga xam ne seytaane moo leen ko tegal ci wan leen ne jarul ngeen di tënku ci alquran ak ci sunna loolu seytaane ak fiir la gu mu tëral di ko waree góor yàlla yi bëgg a dem ci yàlla ne leen boo bëggee dem ci yàlla daal soxlawul alquran ak sunna yooyu dalay tànne ay détails la ah, na ngeen xuus rek ngeen dem mu ne loolu de du lu salaf yi daan def nitu yàlla yu mag yi ay góor yàlla yu dul jeex a ci nekk waaye mësuñoo nangu wax nit ñi football leen alquran football leen hadis Demer dem ak seen bop ñu ubbi leen ngeen gis yalla ngeen am fatu ngeen am nangam te fekk do ko sukkandiku ci sharia do sukkandiku ci xam-xam do top ben texte ci alquran do top texte hadis loolu ak woru la mënul nek limal mo goor yalla bu la neex bu la neexé siteel saydi ahmad tijani rek tarixa mom bañ nañ ko ba ci alquran ak sunna lañ ko tabax charte la sax ci tariqa bi da ngay respect bette alquran ak sunna doo leen bëtt wa illaa da ngay génne ci tariqa bi comme tarixa boobu lañu nekk ci la mën a waxee kon loolu foog ñu bàyyi ci xel ne képp ku bëgg a yegg fa góor yàlla ya yeggoon nangul di jëfe alquran di jëfe sunna te du tere góor yàlla ba nga àndal su dee góor yàlla pur la wallahi dana la fexe ba nga yegg fa góor yàlla yi di yegg ci cëru yàlla même bu dee fatxu di nga ko am insha allah te doo wuuteeg yàlla doo wuuteeg yonent bi doo wuuteeg gaañu baax ña kon mbokk yi mën nañu teg foofu sunu baaraam bu nu dellu si waatee daanu ko yeggale insha allahu taala euh, ñu ngi jaajëfalaat Cherif Cheikh Ahmed Tijani jaajëfalaat mbokku téléspectateurs yi doon bàyyi xel émission bi jox leen dig daje semaine bii di ñëw insha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الخلق داعياه إلا بلبيك في ترحيبه الزمان بيت الولايات فيه الظلام ومفتاح الخلود وختم الكل شهوة